lan ngay def da ngay continuer rek naan leen agriculture. aliment xaw ma lan autosuffisance alimentaire lan lay def lan ngay def waaw yow laay laaj. li may def mooy wax leen dëgg. waaw dëgg rek dafa doy. déedéet wax lu leer nit. xoolal xam nga lan ngay def wax leen dëgg ba pare yow. non déglu ma waaye non déglu ma yow bu ñu la joxoon réew mi doo def sax cinq ans déglu ma yow xamoo sax yow un an ma mais mais da ma wax. mais nit ñi boo leen di wax dëgg ci li fi nekk yow ngay doxal dëgg wàññi train de vie de ta wan ne ni man mii je suis là damay sacrifié pour réew lii moo fi nekk waaye dafa am fu déglu ma déglu ma bu ma fu ñu war a commencé déet doo ma coupé de doo ma coupé de da nga may baax yegale déet yow da nga may laaj wala laajoo ma ni président Macky Sall bu seetlu seetaan émission bi dina rêve bu guddee non mais ce Aliou Sall c'est un rêveur non je ne suis pas un Aliou Sow xoolal je ne suis pas non je te le jure xoolal xamul parce que nee naa la yéen vous ne connaissez pas les réalités mais Doudou man munoo ma ne man xaw ma les réalités non xamoo réalité da nga dem da nga dem pale non théoriquement xam naa réalité non non munoo non les finances publiques théoriquement non quoi théoriquement rek la mun doon Doudou xam nga c'est réel non non dafa nang non dafa nang Aliou borom kër gi borom kër gi Doudou Doudou borom kër gi borom kër gi cent mille lay gagné non bàyyi moo wax dudu borom kër gi cent mille lay gagné cent mille cent mille francs lay gagné CFA par mois kër gi li si nekk yëpp xam na ko xam na xam na ko mm. xale yi ñu ngi fi mm. mën nañ feebar mm. xale yi war nañ lekk war nañ añ war nañ reer war nañ ndékki war nañ solu war nañ dem école da ngay seet fan mooy priorité yi cent mille kese nga yor yow bu dee da nga ci bëgg jënd ay costume ci cent mille yow yow borom kër gi c'est sûr que ki nga xam moom dafa ne dafa sacrifié wu pour bañ a jël pour pour pour pour bañ a sol ay costume kooku wax dëgg yàlla je pense que ni njabootam

c'est cette programmation, il y a 12 500 devoir dépenser courant chaque mois. Tu ne maîtrises pas. tu ne maîtrises pas les coûts d'énergie. Tu dépenses 12 000, ah. tu 18 500. Il y a un déficit. Mais, d'accord. Après, il ah, que tu Ah. Ah. d'accord. D'accord. D'accord. Dans les manam di nga doon jëndé fukki dërëm ñuy jar 100 francs d'accord way man nan laay def man mais man tamit man man man. man man expliquer ma no ci génné man man man mi yor man mi yor xaliss man mi ñu dénk muuni. waaw xaalis bi 100 millions 100 millions mais man amna na luñ ma wax. ngay lan. mais euh, yamuñu fa nee ma aussi peut-être que ci 100 millions euh warna mëna jël 40000 francs yi man ma jënd ci auto di ci doxantu di solo hmm. pour gérer yenen 60 millions dess des. Hmm. mais man 40 millions ci 100 millions yi ñu ma jox man dama naan man léegi ci 40 mille yooyu comme affaire dafa metti woyofal am na courant bi yokku na xale yi il faut ñu lekk consommation incompressible maanaam mm. lu munul ñàkk faw mu mm. am mm. man je vais prioriser cent mille yi weccit bi bi fa nekk ci priorité yooyu ma la wax ni ñaata nga 40 mille non déedéet 40 mille yi. li yokk moment bi ngay wax loolu. waaw li yokk non moment bi ngay wax loolu. bu dee bu dee dama lay jox ay exemple rek yow yaa yow yaa jël ay ay léegi bu dee. yow xam nga 40 000 nga waxoon moom mu ngay xaw ma la noosé mais bu dee. li nga war a compenser. 40 ah. 000 nga am te 60 000 la war a nekk. Ah. loolu mooy li ma lay wax nii mooy état waaw d'accord na après tu sama xale yi ñu ngi en bonne santé il faut mu am ay coupe budgétaire waaw dégg non man ku la waxul mais loolu xam naa ko yow waaw léegi léegi kan ngay couper lan ngay couper lan ngay couper rek ma ne ma ne est que da ngay añ bi wala ndékki bi euh, wala reer bi non dama ne looy couper non li munul ñàkk waaw ah. li munul ñàkk

say day day day day day day budget day yokku rek. non non xaalis. mais état dafa am xoolal xoolal. xoolal àdduna dafa ay réalité mais da nga ma coupé da nga comme kër. mais mais dégg man loolu man mi la jox exemple kër kay xam naa c'est que da nga may coupé rek depuis sànq moo tax mais je je je te parie d'une chose c'est que priorité yi xaalis boo ko yoree ñu ne lii sangam la moom nga war a gere waa kër gi. xaalis bi nga yor ngay xool fan la priorité yi nekk question de priorité la ku nekk ak li nga mën li ñuy def noonu am na ñoo xam ne ñoo war a def liggéey bi. seen loolu président Macky Sall yaa ko gën a xam. wax waxuma loolu yaa ko gën a conscient des priorités. mais mais mais man président Macky euh, euh, yoo xam ne da koy def bëgguma ko man bu doon sama sago train de euh, kii yow tamit budget xamoo réalité yi. ah xaw ma réalité xamoo lan moo tax moom mu dem andi lii wala lël am na yoo xam yow du la ko wax. non mais d'accord naa mais man sama xalaat rek laa mën a joxe te dama la ne

yow bëggoo ma bàyyi ma yëgali de. non parce que depuis sànq bàyyi woo ma yëgali su ma waxee rek nga coupé ma. su ma waxee rek coupé ma naan c'est extraordinaire. mais il faut même temps pour wax la li ma bëgg. li ma bëgg mooy. dëkk dafa am loo xam ne pour nga defar dëkk il faut nga defar réew mi pour nga defar il faut nga defar nit ñi defar seen éducation defar seen yaram defar seen lekkin loolu il faut ñu am ko li ngay jéggaani bitim réew dafa am lu jar te ki la koy jaay prime la lay jox te amuloo choix da nga koy jënd parce que mënoo ko defar sa réew li war a def njëkk a def mooy ngeen def sacrifice liggéey seen réew il faut que ñu dem xool euh, le livre de Mao Tse-tung bi mu bind en 64 de préparer jël en non non non non non non livre rouge livre rouge Chine euh, puissance économique du monde livre rouge la même réalité. non réalité Non, différence ah ah il faut qu'on apprenne à travailler il faut que ñu liggéey liggéey ba pare jàng. wut xam-xam non liggéey ñu tamit. non yaa ngi ñuy euh, leen liggéey ñu parce que amuñu possibilité liggéey parce que mettre ñu leen ci ay conditions pour ñu liggéey normalement parce que li ñu war a njëkk a mooy man damay dund il faut ma lekk damay loolu il faut ma naan damay loolu il faut ma solu li may sol il faut ma defar ko ci réew mi Sotiba anamu Sotiba créé wu leen ko il y a 40

femmes ngeen gis jëri yu rafet yi ñu sol fa lañ ko jëlé parce que industrie textile dañ ko développer en Inde dañ ko développer ci yenn dëkk yi jasner bi ngeen di sol en France en Allemagne je l'ai vu en Allemagne jasner d'accord mais ay rideau la hmm. rideau ak euh, table à manger jasner yi d'accord c'est la première fois ma gis ko ma tourné xol ci ginnaaw ñu bin ci jasner affaire bi ni la ko yëkkatee gis ko ci souf ñu bin ko jasner ci suuf hmm. ndekete jasner yoy la mom la nit ñi xalé xalé di sol yu weex non pour wax la ne rek liggéey buñ ko defee ci ban société la ñu créé fii fii lan lañ fi créé fii ci réew mi lu dox ah, xanaa ñoom ay ñoom seen i ko ñoo commencé di liggéey di góorgóorlu ces vieux là ñu commencé di ñafe mais ay Sonadis tey waroon nañ dépensé ji am ay dix euh, euh, euh, société de commerce yu toll ni ay yu toll ni ay Auchan bo demee ay Europe ni mais am na ay Carrefour amna ay Édouard Leclerc amna ay Cora amna façon bu nek amna Lidl amna amna amna euh, am euh, mais Shopee y' a tout so c'était façon bu nek yu niróo comme Auchan yi yaa ngi fi am ñun benn daggatu Auchan ay nit ñoo ko sax jëlee bitim rew ay journalist bi ko fi créer mais ñoy da leen waron dimbali pour ñu gëna développer développé mbir mi waaye li ñuy jaay duñ ko jëlé toujours bitim rew ñu commencé mais ay carottes ay machin culture maraîchère ma maa lay wax sank seet dex la ñom mais da may couper rek parce que bàyyi woo ma yeggali dex.

jàppale la pour nga développer. mais Senghor boo commencé développer doon puudar. mais mais doxul mais kenn fayul mais Ablaye ñoom. ala non ay ñaata fonds moo fi am moo am. nee nga ñu puudar gaay mais non. non nañ delloo si loolu. non dañ leen ah, nangu toolam. non ah. il faut des garanties déjà Vous ñu lay bu ñu lay ma xam nga euh, toog liggéey naa euh, ci ci ci benn banque bu tuddoon la banque Sofenco qui était une euh, filiale du Crédit Agricole Euh, xam c'était Euh,